honneur la aussi suñu justice su réew am noo xam ne da koy taxawee pour que ñu ni un jour ou l'autre euh, euh, justice Sénégal jël na opposant bi ëpp doole si si si si si si si si réew mi de tous les temps nag atte ko ci mbirum viole def ci nii soit acquitté nañ ko wala soit nee nañu ah moo def jàpp nañ ko dugal nañ ko ci kaso bi wala nangam ak nangam. su fekkente ne laa wax moo am. Mm. mais est-ce que gis nga kon mbir mi instant bi diis gi mu diis. ñun fan la ñuy daw wàllu ji c'est la grande question que l'on se pose te te responsabilité bi ci ëpp nag wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire c'est le président Macky nañu dindi barricade bi ñi nga xam wala bokk li nga xamante ni def nañ ko buntu kër jàmbur ba tax lii lii am fi wax dëgg yàlla alors on est en direct euh, ak euh, Serge malo mu nekk membre euh, task force républicain directeur Euh, financement agricole euh, boo fayee bokk mën nañ wax rek ci coalition benn bokk yaakaar wala ci APR Serge Malou si ban ban laay wax sax <laughs> coalition benn bokk yaakaar wala APR Serge Malou gannaaw bi ma la nuyoo ba noppi. ah <laughs> maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. ñaar ah, bi tuuti wala waa régie yokkal ñu retour bi. ñu dégg ko bu baax régie mën ngeen ñu yokkal retour bi parce que Serge Malou moom ci suuf rek lay wax te ni nga ko gisee noonu noonu la noonu la njax la fee <laughs> alors monsieur Malou ñu ngi lay dégg. waaw waaw maa ngi santi biram sant aussi ñi nekk ci plateau bi yëpp. Fatima. je pense que waaw Fatima ak. Hmm. Euh, Birame. ak Birame Birame maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant bu baax. Hmm, hmm. c'est vrai que depuis sànq maa ngi leen di suivre. di rafetlu seen toogaay di rafetlu aussi kàddu yi ngeen fi mbir bi baax na bu Sénégal tollee fii. ngeen def li ñu mel. a à dire def euh, édition spéciale di wax ak nit ñi di leen yee. parce que tey seen plateau bi comme toujours ah. bokk na ci plateau yoo xam ne sénégalais yi dañ leen di déglu di leen nawloo. mais yow ñu ngi lay xaar kañ ngay ñëw c'est clair. <laughs> waaw waaw waaw dinaa ñëw ndax fan yii moom wax dëgg yàlla xaw naa bëgg mais avec un grand plaisir xam naa danaa fa ñëw c'est clair. du yaa ngi suivre c'est ah. yaa ngi suivre c'est clair. matinal matinal maa ngi suivre bu baax maa ngi suivre seen plateau yi. waaw boo fa ñëwee dangay gën a clair de. <laughs> waaw waaw waaw waaw dinaa gën a clair yow xam nga ma Papis. <laughs> waaw alors alors Serge fi mu nekk di situation bi gis nañ ko euh, gis nañu yenn jàppante yu am ba. am yoo xam ne ñu ngi koy taal di ko lakk li ci li ngay gis ni sànq muy kër euh, ministre Matar Ba ak tamit corbiar bi ñu lakk man boobu ma naqarlu ko loolu euh, tey ban jàngat ngay def actuellement ak situation bi xew nii bon jàngat bi jàngat bi ma ci def rek mooy immaturité politique xam nga aussi tamit hmm. ku mën a wax lii rek mën a wax leneen dëgg la hmm. xam nga problème bi problème bi ñun ñëpp xam nañu fi mu jógee hmm. xam nañu fi mu jóge xam nga man membre APR laa c'est hmm. je suis coloré hmm. mais dans le discours bi may sévir hmm. c'est-à-dire borom xel yi laay waxal c'est-à-dire ñun tous nous sommes ñëpp ku toog ak sa wax ak sa aqulaay taala moom nga la mise en cause Sonko bu demul woon Sweet Beauté lii yëpp du am am ñaari jeeg bàyyi ko sa <laughs> ak sa ak sa ak sa ak nu ñu ko waxee pomade ne da ngay dem en plein couvre-feu di dem fekk ak benn xale boo xam ne lu ci yoonu état loolu moo indi lii yëpp nañ mm-hmm. waxante dëgg ku mën a wax lii mën a wax leneen mm-hmm. ñun ñëpp ay góor lañ waaye kay ku fi jëloon tey pomat ne sa jabar maa nga dem beneen xale bu jigéen di ma maase nañ waxante dëgg mun nga woowee justice nga ne doo dem wuy justice naan gatsa gatsa dëkk nag tout le monde est justiciable nous sommes tous des justiciables nañ waxante dëgg. Mhm. ñu la woowee dialogue politique nga ne wuyuma dialogue politique. Mhm. taxaw di gàtta gàtta gis nga réew boo ko bëggee yor dafa am comportement boo war a am tey yaa ngi woote ñu taal dëkk bi suba yàlla bu la joxoon réew mi buñ la ko defoon tey fan la réew mi di jëm et ñun politique yi il faut ñu am benn affaire ñun mëtuñu un pour cent ci population bi. Mhm. bëgg a population bi en haleine ah. dama ne du dëgg du yoon. Hmm. yéen ñi nga xam ne yéen journaliste yi mais nañu waxante dëgg yéen da ngeen di liggéey seen liggéey ngeen yor pour dundal seen njaboot pour def seen activité le secteur privé national lu seen yoon ñi nga xam ne ñooy moteuru économie du Sénégal hmm. l' lu seen yoon ci li xeexu politique seen yoon nekku ci. seen yoon nekku ci donc ñun politique yi dañu war a xam ne moomuñu réew mi. Hmm. réew mi dañ ko bokkook ak ñeneen donc lépp lu ñuy def comme Cheikh Bara li mu wax réew boo ko bëggee doo ko yàq réew boo ko bëggee da nga koy sàmm bu ñu yàqoon tey réew mi ba réew mi basculer armée jël ko ba réew mi yàq daxet mais l'un dans l'autre nous perdons nous tous moo tax man sama position c'est claire c'est-à-dire que tey buñ la woowee justice nga am man de buñ ma woowoon justice man Ibrahima Serge Malou accusé ma viol boo nekkoon ci biir bàmmeel sax ma ma génne la sa biir bàmmeel pour laayoo sama bopp. mais mais Serge. Serge si côté boobu noonu moom li mu wax mooy dañuy jalkati li nga xam moom mooy ay àq ak yelleefam Euh, te it bu waree dem wuyu ji ca tribunal dañ koy wutal yoon bu muy jaar duñ ko bàyyi mu tànnal boppam yoon ba mu jëm encadré ko yenn saa yi sax ñu foqati ko ak brutalité gis nañ ko ci en image dugal ko ci biir oto loolu tamit euh, nee na dafa dem ba benn instant. moom xel mi dalatul moom Ousmane Sonko mi ngay wax. non non non Papis nañu waxante dëgg Ousmane Sonko lu muy def day fooy xelam Ousmane Sonko ba addinay tukki ba addinay tukki du jàkkaarloog Adji Sarr c'est-à-dire que ñun mën nañoo wax nii ñu vraiment dañuy wax lu dul dëgg. Mhm. mais dama ne ba addinay tukki. du mhm. jàkkaarloog aji saa te loolay dëgg. loolu fan nga ko loolu loolu si fan nga ko teg seer. li tax mooy nga ni mënul jàkkaarloog kooku tribunal. non du jàkkaarloog aji saa xam nga tax du jàkkaarloog moom. du procès bi mësul dëgg mu leer. mais jàkkaarloo nañu ñoom ci kanamu euh, procureur ah. mais jàkkaarloo nañu ci confrontation. confrontation. waaw mais confrontation bi mais dama ne au tribunal laa wax. te yéen gis ngeen bu baax. Mhm. Alpha le docteur Alpha Seyni li mu waxoon génn na ci. Hmm. début bi dañu ne woon amul sperme amul hmm. dara mais gis ngeen li ñu wax. Hmm. gis ngeen tribunal mbir yee ngi commencé leer. mbir yee ngi leer Alpha Seyni li mu waxoon au départ. capitaine Touré li mu waxoon au départ Léon à la barre ñoom ñëpp changé nañ position ça veut dire quoi Biram. ça veut dire que affaire bi dafa am lu ci ne. dafa am lu ci nekk te li ci nekk ñu xam nañ ko ñu Ousmane Sonko xam na ko. moo tax à la barre Ousmane Sonko kan moo am intéret moom moo taxawoon ne mbir bi dafa bëgg mu leer. Mhm. c'est-à-dire binam ku mën a wax lii mën a wax leneen. d'accord mais mais mais Serge déglu ma rek depuis le début du problème. ba mu njëkkee def déclaration lu ma wax xaw ma xale bu jigéen bi musuma dem sud. bu d'accord mais mais mais présentement il s'agit plus du procès. Mhm. mais instant yi mooy image yi ngay gis ma di ko gis keneen ak keneen di ko gis. mais responsabilité yi même su nekkee situé nañu ko instant bi nii monsieur Mballo lan la ñu war a mën a def pour que ça cesse parce que traque tract yi nga xamante ni ñun seetlu nañu ko mooy tract yi nga xamante ni ñenn ñi bokk nañ ci nguur gi ñu ngi koy def di di sagager seeni bien mais également bien public yi maanaam bus yi nga xamante ni ñu ngi koy lakk et cetera et cetera mais est-ce que sama kër ku ma taal ma taal la waaw wuy ma <laughs> waaw d'accord mais mais wuy ma instant bi instant bi nan lañu war a mën a def pour affaire yi dal tuuti quand waa waaw mais affaire yi dal xam nga lan la tey kan moo woote tey ñu dem kër euh, kër Ousmane songo mais c'est Guy Marius Sagna avec ses partisans nañ leen téye c'est-à-dire réew bu ñu demee aussi bay lakk bien wu nit kenn warul si félicité euh, kenn warul aussi loolu kontaan nañ waxante dëgg réew kenn du ko yoree noonu lii réew kenn du ko yoree noonu daal ko lii lépp lii lépp je pense que c'est Ousmane Sonko. ak ñi mu àndal bu ñu bëggee nag ériger violence dans leur mode de de de de politique mais je pense que réew mi ci nërmelu la jëm lii nag dañ ñëpp a war a restituer hmm. au niveau de l' état central du gouvernement au niveau aussi de l' opposition ne nañ nañ dem dialogue dëkk bi da daan gis Senghor bu Abdou Diouf dans les crises les plus profondes Abdou Diouf arrivé à discuter avec Ablaye Wade hmm. tey Ousmane Sonko ak mu munti demee bu ñu wooyee dialogue demal nga toog ci dialogue bi dialogue bi mënuñu la imposer du ñu tëj sa làmmiñ takk hmm. say loxo bu ñu la waxee li la arrangé nga wax li la arrangé yow mais bu ñu nee nga ñu dem ñëpp waxtaan yow nga ne doo waxtaan tu préfères gàtta gàtta ci mbedd bi nañu waxante dëgg c'est irresponsable te kenn du politiquer noonu loolu mooy dëgg loolu nag waxuma lakk bi rek mais Zeyna loolu mooy conséquence lii hmm. loolu mooy conséquence bi loolu mooy njeexital bi. merci Malou dëkk dañ koy waxtaanee. Malou Malou nag sa yaram tàng na merci beaucoup ñu ngi ñu ngi lay xaar c'est clair boo ñëwee ñu àggali ko foofu bu soobee yàlla. Hmm. on aura largement le temps.